yaa Hey asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi foo leen mën di nekk rek xam ngeen ni ñoo ngi fii si dëkk bu sell bi di tubaa ni ngeen ko gisee fii eh, si jumaa yu Cheikhul Khadim gi résidence Cheikhul Khadim ànd ak nag eh, mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina ñëw nag si eh, bisub ndogu yi ni niñ ko defee si ndorteelu weeru koor yi ba léegi xam ngeen ni ñu ngi si ñetteelu kumte yi. nga xamante ni bi ci mujj mooy bisu korite gi ni ko waaye waa kër maam Cheikh di defee mboolem seen tey mbokk yi xam ni muy ñetteel bi di bokk si bi si nga xamante ni sëñ Mamour mooy xaaj bu mujj bi moo tax fu nekk mbooloo jóge na fa daal di teew si si liggéey bu rëy bi ñuy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall si ndigalu Cheikhul Khadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii Serigne Touba Khadim Rasoul sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax a baax Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall sunu borom yàggal ko fi loolu te ak wér ak mbooleem njabootu maam Cheikh buntu kër yëpp ni nga xamante ni moom lañ koy defee ci ndogu yi sell yi nga xamante ni Euh, moom la ñuy euh, liggéeyalee euh, Serigne Touba Khadim Rasoul Serigne Mamour Ndaw Baye faal kon tey la ñetteelu kumte yi niñ ko ànd ak mbokki taalibe yi El Hadji Fallou Syll di la ziar bu baax a baax ci kumte yu njëkk yi ba fii suñu jonn yàlla tey gis nga mbir mi moom li li li Serigne bi di wax naan ku yokkul yaa wàññi waaye liggéey bi yokku na. tubarkalla sëñ Alioune Badara Ndim jërëjëf di ziar baax El Hadji Fallou Syll ci taxawaay boo am solo bi waaye di ziar maam Cheikh Lo Baye di santaat bu baax Serigne Alioune Badara xam ngeen ne tey mooy ñetteelu kumte euh, comme niñ ko euh, baaxoo defee xam nga at mu jot euh, suñu egsee rek fii mbooloo mu takku moo xamante ne bii kenn du xam ni toll ndax xam ngeen ne Serigne Cheikh Jëm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall moo yegg si léegi waaye diir bi ñuy wàcce ndog yi njabootu Serigne Cheikh Fall Mboor ñoo doon tàbbi si noonu te la mel ne la may séen tamit ca la mooy wàkk Serigne Abdou Sakkoor Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi muridina fekk fii tam nag waa kër Serigne Kadda Fall moom Serigne Adama Fall moom waaw sëñ waa kër sëñ gàdd moom sëñ aadama moom sëñ aadama Fall moom së maam Sadiou Fall Darou Khaboor ak ah, waa kër sëñ Momar Talla Fall ah ñoom itam ñoom xam nga waa kër sëñ Cheikh Fall Mboor ñooy ànd waa kër sëñ Cheikh Fall ndigal gis na ñoom itam léegi dañ romb jëm ci jàmbaar ji sëñ Moussa Ndiagne waaye loolu lépp day wane ne maam Cheikh Ibrahima amati na ndam ndam li nag mooy lii rek ndax Cheikh Ibrahima Fall nee na ku yokkut yaa wàññi waaye ku ñëw tey jii da nga gis ne kumte yi nag mel moom tey moom bis la moom ndax yaakaar naa liñ gis ca biir fee léegi ndeysaan murid bi ñu wax sëñ Mouhamed bokk ci ñëwer carnet bi léegi laa woon xanaa moom li tey yéemu na mu ne ma ca 11h ba tey noo ngi tegale mu tën a jeex kon dafay mel ne day wane ne kon murid yi fàkkuwaat nañ nag bu baax a baax su ko defee nag ñuqi na ko Seera Fall waxoon ngir fas yéene rek nag ah, tàbbi ci liggéey bu tedd bi nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina la ko santoon waaye sëñ Aliou Badara xam nga ne fii may waxee yow nii boo xoolee Baye Fall yi xam ne amatuñu sago eh, ci li ñuy jëf amatuñ sago ci liggéey bu rëy bii na xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko fi bawoon ndax dafa mel ne eh, damay yéemu ndax eh, gis nga oto yi bi ñuy jillante léegi ñu jiital eh, convoi bi nga gis mu njëkk jàll te kaar yi ñooña waa Ndar Fall lañ sëñ Mourad Laye Fall Ndar jàmbaar jooju nga xam ne dañ koy jooy ba tey te noppeeguñu Serigne Cheikh Bintu di góor yàlla taxawu liggéey bi gis nga bi muy tàbbi si léegi ak mbooloo mi da ngay yéemuwaat waaye nga xam ne la fi ab Ablaye Fall Ndar baawoon ba tey gis nga liggéey bu tedd boobu na ko sëriñ Talla Ablaye jëlee tey ji yokk ko bu baax a baax a baax a baax waaye ànd koog mag mbooleem jàmbaar yi nag ndax tey buñ nee jàmbaar mën nañoo tudd ko woon ci démb ci dimb la woon ndax euh, sin laykan la bàyyi ko woon di woon mbërum lamb fekk maam Cheikh Ibrahima Fall Thiès jox ko boppam na ko sama doole laay jébbaloo lu Cheikh Fall ma sa joxoñ kenn mosu cee mën Baye Moussa Niang kollu tey jii Baye Talla ngi fi yàlla dogal mu ne ci keppaaruk Serigne Modou Ablaye Fall Ndar ba Serigne Modou Ablaye jóge fi mu tey taxawu Serigne Cheikh Bintou xool ko mooy waaxul boppam ànd ak murid yi bu ñëwee gis nga day lal toog dend ak Serigne bi am yéene ak pas-pasu rek la bàyyam doon def ci kanamu Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina muy Baye Moussa Niang Koll loolee tey ji moom la Baye Talla Niang téye ci loxoom bu tedd bi Serigne Serigne Cheikh Fall Khady Gueye amee ànd ak délégation bi nga gis mu ñëw toog ci wetam def ci maam Cheikh Ibrahima ci diir bu gàtt bi ñu toog ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif Serigne Mamor Mbacke Serigne Lampo Ndiaye murit yi duñ yàkkamti Baye Talla ñu jóg fi ci jotaay bi barki Cheikh Ibrahima Fall naa lépp ci biir ak sëñ Modou Ndaw Baye Cheikh Ndaw ak ñoom sëñ euh, gis fii ci biir gis nga li li ngay mos ci biir rek boo génnee ci biti da nga naan ndax li ci biir rek li ci biir lan moo ci dàq waaye maam yaa ngay tàqamtiku rek nag tàkku saanuk Touba moom jar na sol daal li weñ di dox Europe ba Sénégal ba mu xar tàkku saanu Touba ci koor gi laa lay wax de tàkkusaanu Touba ci koor gii nga dégg moom laay wax murid ba Ablaye Diop Ablaye Diop mu gis dégg nga ko ci kanamu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu jiite kuréel gi ànd ak ndak mbooleem kuréel yëpp nga xamante ne bii fan yii rek dama taxaw di gis kuréelu Thiès kuréelu Tëngéej kuréelu fu nekk ñëw yaatal ndeysaan ku ne ñëw kenn ku nekk jàng bu ëllëgee sa morom jàng ci kanamu Cheikh Mouhamadou Mountakha te kat loolu taarix da ko nettali ëllëg mooy toog naa Sëñ Tuubaa toog jàng muy dégg loolee la murid yi nekkee ci biir waaye murit bu mag bi nga xam ne sëñ Muntaxa na yuusoo ngook yuusu <laughs> waaw nga xam ne waaw yuusu di ko ziar bu baax a baax Diop tey ñaan yàlla liggéey bi ndax signalin dama laa bëgg a wax na la noos gi ne fii hmm. kenn mënu ko nettali kenn lu dul rek koo xam ne danga nga teg sa tànk xoolal isbu tarxee yi ci biir di jàng Cheikh Mouhamadou Muntaxa toog xoolal Baye Fall yi si kar xoolal mbooloo mi xoolal tey sëñ Alhaji Fallou Sylla dana ko zoom nga di ko gis gis nga ba na image ba may fàttali daaw waaye mel na ne tey tuutee tey ñu am ko de tuutee ñu am ko xoolal mënoo gis fa mbooloo ma toll tey kon da ngay yéemuwaat ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ñëpp wàll si hmm. xoolal mortala murit bi Masaalik la jóge du du bokk ci yoon wi nag di jàmbaar lool jërëjëf euh, Serigne Mamour Ndao Baye Fall xam naa ni wax nga wax nga lu yéeme mooy nag euh, euh, lu jëm si takku takkusaanu Touba ci weeru koor wi gis nga fépp ay riir ni nga ko déggee si xasaayid yi noonu nga ko déggee si sikar sikurlaahi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha du ñu noppi di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamande ko wér ni ko waxee waaye xam nga ni euh, ñu ngeeg euh, Baye Fall Serigne moom wax taala euh, moom nga xamante ni lépp maam Cheikh Ibrahima Fall la borom Kawsara di ko ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla ñàkkul ni maa la wax li eh, nee na ma fi mu ne nii ñëpp a jàll loo leen yëg jamono ji si ñetteelu kumte yi waaw di wax auzu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim di tàmbale ci nuyu bi xalifatul am li ko ñaanal mu yàgg fi waaye noonu la ñuy ñaanee jëwriñam jëm muy Serigne Cheikh jëmm mi fi nekkal maam Cheikh Fall ak njabootu Cheikh Fall gépp kër gi ñu nekk ni tey di indi ndog yi di fekk sëñ Muntaxa moo nekk daara ji Cheikh Ibra Fall doon liggéeyal sëñ Tuubaa fii tey gi am na teen boo xam ne euh, Cheikh Ibra ko kon Jaaji Fall kon yéen liggéey sëñ bi rek ngeen nekk guddi ak bëccëg di jaare nag suñu jëwriñ ji muy Aline Serigne Aline Thioune borom Lamp Fall waaye di jaare Serigne Mamoun Ndaw mi nga xam ne maam daal liggéeyal Cheikh Ibra ko sànq Cheikh Ibra ku ko liggéeyal mu fay la sëñ Tuubaa du defal nit lay defar ku judd ci dërët ji rek am ci ngërëm li kon ñu ngi leen di ziar waaye sa sëriñ de di kenn ci kër Cheikh Fall sëriñ Cheikh Ngunda Fall nga xam ne moom benn la bu wéy ñu fukk baayam mooy caatu Cheikh Ibrahima Fall baayam am ko muy kenn waaye ndog daal ñaara koy bañ sëñ laaj ma ñaar ñi la kuñ ko santut ak kuñ ko yëtut ñooy bañ ndog de maam Cheikh Fall ko njëkk a tëgal sëñ Tuubaa 1912 ca Thiès di ko yeb di ko indi waaye mi ñëw njaareem 1915 a tëgal njaareem te makka looy lay maam Cheikh Fall dana woon sëñ Tuubaa dama fi nekk di la liggéeyal bu ma fi jógee di la liggéeyal dane ko nag du topp rek du ma topp mag yow rek laay liggéeyal xanaa ma fi ñu ko denc ci Tuubaa fi la sëñ Tuubaa njëkk a julee ci Tuubaa rafetale ko Cheikh Fall fi ko denc nii ci Tuubaa fi la sëñ Tuubaa njëkk a julee ci Tuubaa rafetale ko Cheikh Fall dugub la fa njëkk a béy jox ko sëñ Tuubaa ko woon dama lay liggéeyal bu ma fi jógee di la liggéeyal danaa la jox sama lépp waaye dafa am yaari ne ci man du ma la ko jox la dana ko sama jom la sama ngor suñ tubaab ne ko looloo doo ko jox mu ne ko jom yi laay liggéey waaye ngor gi laa ko sàmmee sëñ Mamour. jërëjëf waaw jërëjëf euh, euh, Baye Fall Serigne ci kaddu yi am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko. Euh, xam ngeen ni mbokk yi ba léegi ni ñu ko waxee si ñetteelu kumte gi. Touba jamono ji foo sànni mbat mu takk ni ngeen ko gisee si image yi doy na waar jéggi na doy maanaam fépp si biir réew mi sànq rek sëñ Mamour yaa ngi nuyoo rek benn murit bu jugee ba Italie ca Novara sànq rek Serigne Cheikh Lo Baye mu ngi ñuy nuyu léeg murit bu jógee ba Louga nga xamante ni fépp si biir réew mi ak si buti réew yaakaar naa ni euh, maanaam ku nekk fii garaat amatu fi maanaam ku nekk da ngaa summi sa mbubb ñëw laxasaayu nekk si ndox taxaw nii rek fi na seex en direct ci whatsapp xam naa ne ay waa waa waa Suisse waa Suisse ak dafa mel ne murit bi Suisse la fi ne moom fi ne ma nga toog Suisse fi ne du noos li xew fii waaw seex waaw am na. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakatuh ñu ñaan si mu taxaw yàgg fi ci sëñ Cheikh Jëmb Fall sëñ Tall ñoom sila wasila ko yokkul yaa wàññi damaa dégg ci Youssou Diop jël Yuusu Tarxiya sëñ Mountakha woo ko ne ko Youssou dama la xibaar bu neex xibaar bu neex mooy dañ doon xas léegi fa mu nekkoon ma toog di leen teewlu ngeen di jàng sëñ Mountakha moo ne ba bu dëggal moo gënal boppam kon moom xam na li xew sëñ Moussa Mbar na lu ñu xam ci maam Serigne Fall sëñ Bissirou sëñ sëñ Géew moo wax ci mel baax Xadim wax lu bëree bëri ci maam Cheikh Ibrahima Fall man nag sama buntu ci kër maam sama buntu yooyu mooy sëñ Moussa Niang Koll sëñ Tall ne mooy sama wasila diw gi may laaj nii di ko yóbbul sëriñ bi moom wax calam ñim sëñ Moussa Fall mu ne ko maa damaa bëgg a yóolu diw gi sëñ Tall ne moo ko wax de mu ne ko ku fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Moussa Fall moo sag diw diw gi nag mu ne ko bëggoon yoreel waaye damaa damaa bëgg a jóg di ko laaj mu ko toogal lépp da fekk toog googee nag am na firnde yu leer yu ci am man de sëñ bi li ma dikkal ren ci koor musuma dikkal sëñ Badara Ndim barke Cheikh Ibrahima Fall ba mu dina ku ñaan ñàkk boo jëndee am kon nan doolu yar bi doolu teggi ni Baye Fall du tuux Baye Fall du naan Baye Fall du njaaloo Baye Fall doo ko Baye Fall doo ko doo ko doo ko xamee Ndakaaru looy wax ci boo ñëwee ba Touba Njaarim looy waxee Badara da nga li ma doon gis ak li woo daan am na waroo de da nga jooy boo noppee loolu dañ ko joxe di nga tuub kon ñu wàcce kaddu yi di soñ suñu bopp di leen soñ dëgg la sëñ Cheikh Lo Baye boo ko bëggee xam kenn mënu ko jàngal kenn maanaam da ngay jaxasoog ñoom da ngay jonjoog ñoom sëñ Mamour ngir xam kan mooy Baye kon nag lii mooy doon ubbite gi ci eh, ñetteelu kumte yi nga xamante ni mu ngi xewee fii si dëkk bu sell bi di Touba toggee nañ fépp si biir Touba waa kër sëñ Basiir Fall alxuraan wax nga ko sànq sëñ Mamour ñu ngi sa Touba jannatul mahwa ca Baye Fall ga tey tey tey sëñ sëñ Bada mu sëñ Mbacke Fall xëri Diop moo yore liggéey bi gannaaw bi fi sëñ Bas alxuraan bàyyee waaye tamit xam ngeen ne sëñ Gunda Bas di jàmbaar lool doomi sëñ Bas alxuraan ànd ak waajuram bu tedd woowu ak mbooleen njabootu sëñ Mbacke Fall gi yëpp nag la ko tàmbalee ci sëñ Cheikh Cokke sëñ Assane faa Ndiaye sëñ Assane Taalin sëñ Fallu Maam Sey Diop sëñ Mbacke Fall sëñ Moussa Fall jëwrin mu sëñ Assane mbooleem ahlu ki sëñ Mbacke Fall xëri yëpp ñi ngi ànd ak seen mag ju baax ji sëñ Bada ña ngi koy toog ci janatu Mahwa ca Baye Fall ga waaye nag bàyyi la xel ne waa Touba Philadelphie waaw ay murit lañ yoo xam ne sëñ Mouhamed Diop Baye Fall sëñ Amadou Mbeng sëñ Amadou sëñ bu baax a baax moom moom moom moom day day nekk si ginnaaw di puus di puus mbokk yi rek xam ngeen ne waxtu bi buñ ci masaana toll te la ñuy fàttali murit yi bis bu mag ba ñuy def ca Philadelphie mm. muy la 14 août incha allah muy sant maam Cheikh Ibrahima Fall boo xam ne ca Touba Philadelphie mooy dajale addiye ju ñu indi Serigne Cheikh Jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall bu yàggul rek lañ indi addiye ji ànd ak murid yëpp ñëw jox sëñ Cheikh Jëmm daanaka millions yoo xam ne mën a su koo lim ñi ngay waajalaat nag ngir sant maam Cheikh Ibrahima Fall Philadelphie ca Amérique kon murid yaa ngi ci xoola heure yi bu ma saan dañ ko fàttali murid yi xam ne faa Philadelphie waaj nañ takku nañ indi nañ seen i kumte li ci des nag mooy sëñ bi jàpp na leen bis la 14 août sant maam Cheikh Ibrahima Fall ci Touba Amérique fi la xam lu fa ruusee lu nekk ñu andil ko takk ko andil ko Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak mu doon ay millions yu takkoo takko takko niñ ko defee daaw incha allah fas yéene koo defee ren ndax daaw sëñ Mamour li ma si daaneel mooy ñoom nee nañ bis boobee bisub ndigal la di bisub addiya xamul jamono ju naqari ndax jamono jooju yaakaar naa ni fépp maanaam xew-xew àdduna bépp dañ ko toxal mm-hmm. waaye bis boobu rek moom la ñu mën a yëkkati suñu loxo si àdduna ni bis boobu rek la ñu taxawal muy bis bi nga xamante ni fa la ñu yëkkatee addiye gu takku waa Philadelphie waa Amérique gëpp takku ànd ak jëwriñ Amadou mbeng ñu takk loolu indil ko Serigne Cheikh Jëmb di leen ziar bu baax a baax di ñaan suñu borom mottali bis boobee nga xamante ni ni mu ko waxee le 14 août lay doon El Hadji Fallou la jaajëfal bu baax a baax xam naa dugg si biir fas yéene fekk fa mbokki taalibe yi gën a saafonteeg ñoom ngir xool nag liggéey bi ni mu sellee ni nga xamante ne moom lañ koy jë jébbalee Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla nañ ko ko yàgg a jébbal tey ka ànd ak moom barki maam Cheikh Ibrahima Fall kenn bañ a manqué wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.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 إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله